Gambo Gueye xam nañ ne pare na à 100 pour cent quoi waaw. mais tey muy ko rek mais ku xam Tapha xam ne suñuy adversaire la ñun ñii ñun la waroon bëreel. waaw. non war na mën a bëreeg moom parce que làmb moo ni léegi quoi mais normalement ñun la waroon bëreel avant muy bëreeg gàmm mais comme làmb léegi dafa xaw doy waar quoi. waaw mais wax dëgg yàlla Gamou Gueye am nañ si moom yaakaar bu baax a baax ndax jàppante nañu ak moom. mais tey boo doon pour mu bëree ak ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur lan nga koy wax moom Gamou Gueye. non Gamou Gueye li ma koy wax moom même su ma ko waxul sax moom xam na ko parce que am na si lu muy jugee te lii nii combat bi dafa war a confirmer li ma koy li ma koy conseil mooy mu taxaw ba jàpp doog a def action ndax man leer na ma leer yàlla moom. li yàlla maye su ko nanguwul su jàppee Tapha Mbeur du yàgg. waaw wax dëgg yàlla gis naa si forme bi baax na amul poids bu bari doole la gën a liggéey te xam naa ne taxaw na tamit quoi lépp laa koy digal mu def ak moom ndax bu dee lépp lépp lépp bu ko def moom moo ko man barki Seydina Mohamed bu ci yàlla génnee dama ne la Tapha Mbeur bu ko gàmbu gay bu gàmbu gay xeexe moom day ñàkk bu bëreek moom mu ñàkk non sawaay mooy favori dañ koy ñaanal ndam rek waaw mais man ñi war a bëreek man ñoo nanguwul bëreek man parce que man mënu ma def onze combats dix victoire benn défaite jóge si yankaaw mënu ma am combat bu baax comme ñan non kaagurne na ñëw ñu bëre daa daan yankaaw ma daan yankaaw këll gi daan ka ma daan këll gi lan la ma mën a bañ ci làmb ah waaw na ñëw ñu bëre. bu dul moom euh, nu mu di sama presque sama potentiel adversaire yëpp dañoo am combat Mor Kànkang na ñëw ñu bëre ah mais dañoo war a ñëw ma noogatu leen barki sëñ Touba ku ñëw baax na na adversaire yi jaadu rek si kanam stade incha allah amu ragal